weesoo jóge nañ sànq ASC bokk jom foog nañ fa mbélo mbolo bu am solo ñu ñëwaat fi aussi liñ fi fekk euh, doyna war parce que euh, ñi ngi jëm ci ben demi finale la demi finale bi dox seen diggante ñoom ak ASC bokk jom mu nekk ben derby euh ñaari grande hein comme puisse dire ci ci département bu Guédiawaye ASC Diso ak ASC bokk jom demi finale la nak demi finale bu maga maga mag la dimanche fële si stade Amadou Barry ñu ñëw fi seet ci lène xol ñom naka lañuy wajé sen match euh, bi dox seen diggante ñoom ak ASC bokk jom dimanche fële si stade Amadou Barry ñu jox leen rendez tuuti euh, laaj coach bi xool ñoom naka la ñuy préparé réellement seen match bi nga xam te ne dox nañ si diggante ASC ñoom ak ASC euh, Bokk Jom dimanche fële ci stade Amadou Barry voilà ñu ngi ak euh, Justin le coach su adjoint ASC euh, Disso comme ni ñu ko defee sànq ci euh, boo ko Jom ñëw seet si leen aussi ñoom ndax lañuy ñuy seen demi finale bi dox seen diggante ñoom ak boo ko Jom donc su ñu ngi lay nuyu baax. maa ngi lay fay di nuyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di wax match bi daal fair play la quoi fair play la ñu war a njëkk a dawal mooy ànd booloo nekk benn dem ci jàmm ñibbiseeg jàmm quoi. voilà donc ñu gis ne si phase zonale yi. joué ngeen euh, cinq matchs am euh, encaissé euh, deux buts dugal neuf bi donc ban bilan nga ñuy mën a tiireel foofu. waaw parce que loolu soo ko gisee lenn la rek mooy liggéey dans la vie lépp liggéey la liggéey rek fayeeku soo liggéeyul mënoo fayeeku maanaam ñun dañoo liggéey diir pour mën a fayeeku loolu. loolu la rek du lenn. voilà donc ñu gissé aussi euh, équipe bi ngeen di euh jouer ngeen match de poule ngeen door ko 3 bi à 0 euh naka ngeen di waaje match boobu dox sen digënté yeen ak ASC euh, Bokk Jom. ah wa ñu koy wajalé lenn la rek moy ñun dañuy continuer suñu liggéey manam liggéey bi ñu jëloon moom la ñuy rek parce que ñun match yëpp dañu ko jappé liggéey la rek dañuy liggéey deug la jé nañ journal door len 3 ñun match bi ni suñu waxé day yomb dañuy fen match bi leen la rek mooy liggéey détermination ak euh, engouement match bi ak vigilance la rek mooy gagné match bi. voilà est-ce que même préparation la par rapport ak match bi ngeen njëkk a joué. waaw préparation bi maanaam même la rek jigéewuñu fu ñu nekkoon parce que préparation boobu noonu moo ñu mayoon loolu léegi maanaam dañ ci yokkaat yenn touche ndaw rek lañ ci yokkaat. pour gën a mën a dem quoi. voilà ñoom sànq bi ñu leen laajee seen coach bi am na benn mot bu mu wax ci par rapport ak match bi ngeen njëkk a joué moom nee xam nañ seen erreur yi nga xam defoon nañ pour ngeen gagné leen parce que jàpp nañu ñoom qualifié woon nañ ba pare donc yow bi woon bala ngeen defoon pour gagné match boobu. waaw ah, moom laa wax rek ñun dañoo liggéey ñun xooluñu ay qualification yi kii déedéet ñun dañoo waxoon dara mooy nañu fexe jéem a def le tour génn deuxième tour ñun loolu moo nekkoon suñu objectif te objectif boobu nañ ko joué nañ loolu biñ day ñoom ci match boobu ñun xooluñu ni ñoom génnoon nañu ñun lu ñu xooloon mooy lan mooy match woo dañ ko waroon gagné pour mën a génn deuxième tour ñu def tous les moyens ak tous les nécessaires pour gagner match bi mariner engrais ingrédients yëpp pour gañe ko noonu la ñuy démarrer rek match bii nii noonu la ñuy mariner waate suñuy ingrédients rek pour gagner waat match bi. voilà ñu gis ne match bi dimanche la euh, nga nekk ci benn entre match amical est-ce que réellement bi war nga jouer match amical. waaw instant bii nii soo gisee match amical bii nii. du dara quoi ma parce que suñu joueurs yi lañ bëgg maanaam ñu demee ci benn esprit parce que match entraînement yi ñuy yi ñuy joué nii dafa am loo xam ne moom lañ ci laaj ci match bi ñu jëm nii. parce que xam nañ match bi ñu jëm nii match bu métti la léegi métti boobu noonu moo tax ñuy udee match yu métti parce que su nekkoon entraînement bi kese ñun ñu ñun ñun ak suñuy joueurs yi kese li ñu bëgg ci match bi duñ ko am. donc est-ce que voilà dimanche ngeen di bi est que ci côté médical mën nañ jàpp ne équipe bi au top. waaw équipe bi moom ci côté médical il est au top fenn lañ doon jooyee mooy match bi suñ ko teeloon joué dinañ ci jooyee parce que instant boobu noonu suñu yenn joueurs yi feebaroon nañu ñenn ñi gaañu mais yàlla def na ba pousse nañu match bi ba suñu joueurs yooyu noonu ñu pertoon ñëpp dellu si nañu. moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. voilà ñu laaj aussi sànq coach si mu ne euh, match bi boo xoolee li ko war a gën a mën a gagné mooy ku jàppul physiquement doo doo doo doo gagné match bi. est que loolu jàpp nga ne moom mooy li dëgg. waaw non loolu moom bu la kenn na match bii nii physiquement soo taxawul mënoo ko gagné parce que détermination bi ci am ak engagement bi ci am il faut nga taxaw physiquement pour gagné ko loolu moo tax ñun suñu ba bàyyiwuñu dara dañoo dañoo maanaam pare si côté yëpp physiquement tactiquement techniquement. ñetti base yooyu mooy gagné match bi. voilà ñu gis ne boobu ba léegi euh, équipe bokk jom bi bi mu jugee ci phase zonale bi dafa def benn association est-ce que remarque ñi def ngeen remarque boobu. waaw non def nañ remarque boobu bu baax a baax a baax moo tax ma ne la soo gisee match d'entraînement yi ñuy wut nii parce que loolu moo tax parce que biñ jugee suñu match ñoom maanaam euh, yéeg montante bi ñu monté si lañ xam ne ñun match bii ñu jëm nii non match bu métti la match bu rigueur match bu technique match bu tactique loolu moo tax ñu indi lii nii. donc solo yow la mooy gañ match bi. match bi vigilance la. du début à la fin ak détermination attaquant yi loolu rek mooy gagné match bi. voilà donc fan yi am na lu fi xewoon ci ci violence moo taxoon sax ñu arrêté match yi di gën programme waat tey boo amoon message bi nga xam te ne yaa ngi koy passé à l'endroit des supporters ban message la. waaw non message bi may mooy lenn rek mooy ñun ñaari équipe yëpp ay doomu ndey lañu ñoo bokk benn bokk ñoo bokk ndey boo ko parce que lii nii mënul jug mënul génn géejawaay léegi loolu noonu. ñun ñooy mën a ànd bokk nekk benn muñ ku ñu gañee nga xam ni gañee nañ la déwén nga dem defaru ku gañee xam ni yaa gañee nga continuer sa sa parcours. voilà donc mu nekkoon la le coach adjoint ñu koy remercier baax di ko gërëm di ñaan ñaari équipe yi ñu joué ko ci fair play et que équipe meilleure équipe gagne. Euh, capitaine ASC euh, Disso ñëw fekk seen seen terrain ñi entraîné. gis nga stade bi terrain bi nu mu feesee nu ñëw euh, fekk seen xool ñoom naka la ñuy préparé seen demi finale bi nga xam moo dox seen diggante ñoom euh, Jom di seen dëkkandoo yi ñu bàyyi ko mu def présentation après ñu jàll ci question yi Fara ñu ngi lay nuyu baax. ñu ngi fay maa ngi tudd Fara man la capitaine ASC Disso waaw di représenté quartier bi yëpp en même temps équipe bi waaw. Fara mën nañ xam depuis kañ yaa ngi ASC euh, Disso. ASC Disso maa ngi fi depuis 2011 ah. 2011 2012 2013 ba tey mais 2013 laa commencé jouer nag waaw. voilà donc mën nañ ne 2013 nga commencé jouer kon yaakaar naa ne bokk nga ci euh, parcours bi nga xam ne ASC bi def na ko lépp donc ren ngeen ni dajanteeg benn ASC bi nga ASC bokk jom ngeen dóor leen am match de poule bi à 0 naka ngeen di waaj a match boobu. waaw match bi moom ñu ngi koy waaj euh, comme du du bokk yeneen match yi parce que match décisif la match capital la.

moo tax mënul yem ak yeneen match yi parce que yeneen match ay match de poule la mën nañ la gagné nga defarwaat mais bi amoo temps boobu buñ la gagné da génn nga si compétition yi moo tax mënut a yem ak yeneen match yi. est-ce que réellement xam ngeen ASC bi ngeen di joué. waaw xam nañ ko bu baax moom xam nañ ko bu baax waaw xam nañ ko bu baax danañ koy respecté nag ba mu jeex waaw. waaw parce que sànq bi ñu laajee seen euh, capitaine bi ñoom. Nous ah, fair parce que amna ñoo Je ne message ngay passer à l'endroit des supporters. waaw je lu mo wax rek comme mom luma suis comme lu mo wax rek ñun suñu c'est xeyna nak offrir match bi mais lu supporter la wara yam pour man jour ñun jour ñoo wara woné bon exemple dans la discipline. voilà donc mu nékkone le capitaine Nous euh, euh, euh, fara donc di capitaine AIC Disso comme li wax c'est important ñaari ASC ñoo bokk ah. yag nañu jouer ay match euh, jamm di am donc du demi finale bi moy am rek c'est la fin du monde ñu ñaanal ñaari équipe yëpp ñu joué ko ci fair play et que la meilleure voilà ñu ngi ak euh, Mohamed Diallo euh, président comité commission sportive bu ASC euh yag na kenn du ko présenté ci ASC bi ñi gëna a ci ASC bi si la bokk parce que c'est normal moy président commission sportive poste bi nga xam moo gën am importance ci football bi ñu koy bàyyi mu def présentation après ñu jolle ci question yi waaw maa ngi tudd Mouhamed Diallo euh, nekk ci ASC bi comme président commission sportive di ci yëngu ci fànn yu bëri waaw di la nuyu yow laay Cissé di la di la dalal jàmm fii yow moom suñu diggante du ay football quoi waaw ñu ngi lay dalal jàmm sa kër nga ñëw. Mouhamed ba sama nañu xam depuis kañ yaa ngi nekk comme euh, président commission sportive bu ASC Disso. presque depuis 2017 ah waaw depuis 2017 euh, lépp luy wàllu président commission sportive. 2017 bi man mako jité won 2017 2018 bi euh, man nekkaat ci euh, am kenen kuñ lon man nekk ci ginnaw ren wat ñu defal mako rek waaw. donc euh, biñ lay jox ko président commission sportive la moo doon objectif ren. wa objectif bi ren mom diisoo jël coupe la même du ay départemental du ay loolu boo ko waxee mën na yakar ne sa objectif wul mais équipe bi dafa nekk équipe bo xam euh adi yeb day dem ba final di ñak yaakaar naa kuy dem ba final di ko ñàkk mënoo xëy di yóot di di di séentu ay départemental ak yooyu suñu objectif moom mooy jël zonal bi andil ko waa dëkk bi parce que gën nañ ko am depuis 2012. ñu gis na aussi comme li nga waxee say wax euh, mën nañu 4 ans yi wala 5 ans yi fréquent ngeen trop ci niveau euh, final te sax année da ngeen koy pet lan mooy seen problème réellement. waaw diisoo du équipe bu ndaw loolu boo ne boo ñu boo duggee géej boo ne diisoo ñëpp xam nañ ko loolu yàlla def na ko. mais dafa nekk équipe boo xam ne euh, dañuy xaw a topp feet ba fàtte euh, ba fàtte niveau match bi ñuy am la preuve tey yow boo fi ñëwee rek boo gisee tey engouement bi am dangay yaakaar ne xëy na équipe bi dafa dem final équipe bi noonu la mel ragalul ko waaw ci buy buy dem ci jongante day dem ak fukkoom euh, loolu la loolu la rek mais yaakaar naa ne lu mag def dee bu dekkee ba ko ñaari at yi am na luñ jàngat lu bëri ci ci ci ci final yooyu ñuy ñàkk. donc ngeen jëm ci benn final demi final nag di euh, final zonal yéen ak seen dëkkandoo yi di ASC Disso naka ngeen di waaj a boobu di boo Bokk Jom naka ngeen di waaja a mas boobu nga xam te ne yéen yéen leen dóoroon en phase bi à 0 naka ngeen a mas boobu. waaw match bi nag ñu ngi koy waaj comme niñ ko daan waajee parce que euh, wax sa mbaaxu waay du wàññi si sa mbaax dara équipe bi équipe euh, boo ko Jom équipe bu mag la booy seet fii géej waay kenn ëpp ko fi titre kon kooku équipe bu mag la. Ah, doo jëm di jongante ak moom nga ne préparé woo ko noo ko war a préparé ñu ngi koy préparé ni ko war a préparé mais dafa nekk ñaari équipe yu dend ba pare xamante ah, miinante suñu dajee du yomb waaw ah, moo tax ñu ngi koy waaj ni ñu ko war a waajee te ci kàttanu yàlla dimanche bu ñu ñëwee dinañ xam ne diisoo waaj na match bi. voilà est-ce waaj bi ngeen di waaj la parce que yéen leen dóoroon match de poule est-ce que même préparation yi la ñooy bokk. waaw préparation yi mënut a bokk mais waat aussi du sori parce que match la. parce que bokk jom buñ na préparé wuñ marché bobu de euh, lolu ay wax la ni rek préparé nañ ko niñ ko wara préparé diso préparé niñ ko wara préparé xeyna bis bobu yalla dafa far ak ñun bi wa dinañ ko préparé niñ ko wara préparé ñi ngi ñaan yalla rek yalla and ak ñun. est ce que tamit en tant que président commission sportif parce que bu waxe président commission sur wax jour donc est ce que japp nga ni ce jour yëpp paré nañ amoon ben problème pour ñu jouer dimanche match euh, demi finale bi. waaw waaw jour yi incha danaka ñoom ñëpp daanaka nañ. waaw ñi ngi xaar bis bi rek ñu dem ci ak jamm waaw donc sa euh, moo bi nga xam moom ngay lancé à l'endroit des supporters ASC Bokk Jom ak ASC Diso sur la non violence. waaw li may wax mooy euh, Bokk Jom man am naa fa ay xarit yow seede nga xam nga ci dara am na si ñoo xam ne même bu nawetaan jeexee dañuy déggante kon li gën a rafet rek mooy ñu jiyee ko ci dal dee ko ci teey ki war a gañe rek mooy gañe Diso Bokk Jom yàgg nañu football te du am benn problème 2015 bokk Diso da koo dóor match de poule ñu ne match de poule ñu daje 2016 ñu ne musi ñu leen gañ a gañ jël ñu dem demi ñu dem gañ jël ñu gañ leen demi final te demi final boobu demi final dootu ko gën a rëy waaw ah, boobu di diisoo mu yor équipe bu mag boo ko jëm yor équipe bu mag mais dañ ko gérer ci dal dal gérer ko ci teey match bi jeex kenn xeexul kenn xuloowul kon yaakaar naa ne match bi waat aussi noonu rek lay demee def di supporters yi léeg fi ñuy fi ñuy daje wala fi ñuy jotee yow miy mag doo ko fekkee mais ñoom ñëpp waxtaan nañu ñoom te xam nañ ne diisoo bokk jom ñoo bokk ndey ak baay yëngal bi ñuy yëngal waa Bokk Jom ñu ngi koy dégg waa Bokk Jom bu ñu yëngalee dañ koy dégg kon foofu jàmm moo fa xej nañ ko joué ci dal euh, ci teey euh, ñu def nànk rek ma def leen ni ma laa leen def rek mu jeex. voilà donc ñoom aussi euh, bi ñu leen laajee sànq jàpp nañ ne aussi équipe bu mag lañ te kenn du leen dóoru ñaari yoon ci année bi te am nga bor nga xam te yoroon leen te dimanche bi incha allah war nañoo fay naka ngay jàngatee wax jooju. wallaay man 2011 ba léegi maa ngi dégg loolu ci Bokk Jom 2011 ba léegi maa ngi dégg ne yaa ma dooroon daaw doo ma door ren yaa ma door léegi doo dooraat kon wax jooju moom yaakaar naa booy na samay samay nopp équipe bu mag lañ nag dinañ jóg dinañ préparer mais di du équipe bu ndaw. voilà diisoo du équipe bu ndaw muy waxu président commission sportive bi di Mouhamed Diallo ñu gën ko xam ci sama copain la nag vraiment li leen ñaanal ñaari équipe yëpp parce que man tamit ñaari équipe am naa fa ay que muy boo ko jom que muy diisoo man njaaxaanaa lay tëddee donc di ñaanal ñaari ASC e que la meilleure équipe gagne. voilà ñu ngi ak euh, Ndiaye Teranga le président comité euh, supporter bu ASC e, euh, diisoo la grande ASC e, comme ni ñu ko waxee woon fële sànq ci ASC boo ko jom seet na leen xool aussi ñoom seen supporter naka la ñuy préparé seen match bi ñu ngi ak Ndiaye Teranga ñu bàyyi ko mu présenté wu. salaamaaleykum waa. télé bi ñu ngi leen di gërëm di leen présence De les remercier seen présence fii parce que yéen ngi def liggéey euh, remarquable match bi nag ñu ngi préparé ci fair play jàmm moo ngi tax a jóg 11h stade bi nañ ko feesal bu ñu tijjee bunt yi mën naa leen assurer lenn ñooy dàq demi-finale gi jaune ci jaune yëpp yëpp ñooy dàq demi-finale ñun nañ def fair play football gagné préparé suñu finale.

Euh, que ni da nga leen dóoroon match de poule 3 bi à 0 donc am na bor bu nga xam te nga leen koy yoral te dimanche incha allah dinañ ko fay laka ngay tontu si loolu. bii bi ñu joué dañoo encaissé ñu joué 11 minutes ñu encaissé bi ñu joué 25 minutes ñu encaissé waat 30 minutes fekk dañ supporter yi ñibbi mais bii biti dee yéex a dugg du leen teel dugal kon du ñibbi bii day mitaan leen dugal biti yëpp nañu saan match bi yëpp ñoom 3 quarts bi kenn saan kenn yeggalul bii nañ ko yeggali biti day yéex a dugg nañ leen

coupe bii kenn ni yàlla may jàmm rek na affaire yi yegg coow bañ am préfet wala waa zone bañ a arrêté. parce ñoom aussi nee nañ euh, ay équipe bu am supporter ngeen macha allah ñoom xam nañ loolu donc ñoom feste na leen huit heures dina leen fekk stade te boo ngeen sàgganee du ngeen dugg yéen naka ngay tontu si loolu. huit heures day teel ñun de huit heures ñun dinañ yeewu dimanche ay tombeel suñu mbokk chrétiens yi dem mees ñu ngi dem jàq teel a yeewu dem jàq ñëw tuddaat def suñu grâce matinée ba yenn heure ñu ñëw

def naa ay sensibilisation yoo xam ne nii wër naa dem naa fu ne waxtaan ak ñoom du ñu coow même ba stade ba du ñu coow match bi jeexee du ñu coow ñoom ngir yàlla ak yonte buñ coow parce que ñoo dëkk ñoo dëkk coupe bi mu ñu wax ba mu génn fii même bu dul dara ñoo bokk mairie bi ñeen benn demi final benn mairie mais ñoo bokk mairie bi ngir yàlla ak yonte dinañ jouer dans le ñu gagné leen ñu gore ba trois laa joxoon équipe ba tas bii du ma jox trois deux baax na bii deux laa vingt ans laa leen koy dugal mu jeex. parce que ñoom am na benn euh, bu ñu fa demee sànq ñu leen fekk ñu ngi benn son boo xam te am lu ñu fi tuddee sax ASC diisoo est-ce que aussi préparé ngeen benn son pour ñoom. grand ngir yàlla maa bi ngeen xool rek. voilà lan moo newoon sa dernier ñu fekkoon a tal ko joué ko jàmm ak salaam parce que ñëw see ñiy gaañu ñëpp innocent yi ñooy gaañu xamuñ ci dara ngir yàlla ak yonent nañu joué ki daan la jàmmoom ku nekk ñibbi bokk jom am naa fa ay mbokk am naa fa ay xarit ñoom tamit am nañu fi ay mbokk ay xarit nañu joué dans la jàmm que le loolu la ñu. voilà merci beaucoup ñu ko doon remercier baax ab Zos. Euh, nekk kenn ci supporteru ASC euh, Disso comme ni nga ko defee woon sànq fële ci ASC euh, Bokk Jom ñoom it ñu ngi leen fekk fii ñu def seen asiko yaakaar naa ne moom moo kii xam moom moo gérer asiko yi ñu bàyyi ko mu def présentation ak suñu dugg si yi ñu ngi lay nuyu baax. waaw sant ñu seen liggéey ci teewaay bi ngeen def fii tey. waaw ñu lay contribuer comme man maay affaire Azuko yi maay jiital supporters yi chaque jour mais match bi mu doon match bi nga xam ne match capital la match dëkkandóor la dëgg la métti na yàgg na parce que date bi bañ ko jàppee ñuy pousse di pousse di pousse mais dëgg na tension match bi moo tool foofu mais bu doon loo xam ne tey ñun ñu ngi koy waajal si bépp côté côté supporters yi pare nañ joueurs yi pare nañ mentalement te ñu xamal ni leen ndox du bàyyi yoonam fu ñu doon jaar leen jaaraat dina métti nag mais ñu nag chaque jour match bi lu leen di gagné si football la fu ñu koy wéeru foofu. voilà léegi ñoom dañ leen fekk sàng ñuy répété. ñu ne am na son yoo nga xam te ne préparé nañ ko pour ASC diisoo. est-ce que it aussi préparé ngeen ay son yoo xam te ne pour ñoom. waaw ñoom yàgg na parce que kilo la dóor di la dóor jàppale cinq fois di la dóor nee am ah bokk jom suñu doom la quoi ñun suñ ko bëggee dóor xam nañ fuñ koy jaar dugal dugalaat rek comme d'habitude ñoom instant yi problème mooy que nañ jéem a xool score nu mu wàññeekoo. mais ñun chaque fois fu leen di jaar leneen jaaraat rek. voilà est-ce que réellement xam ngeen ASC bi ngeen ziyeel. ASC bi xam nañ ko bokk jom la. waaw xale yi doon jooy ñoo màgg rek di football tey pour défendre seen couleur ba ñu doon dóor dañ doon nangu mais tey xale yi doon jooy ñoo màgg moo tax defet jeex na ñun ak ñoom. ñoom ñu ne huit heures la ñuy ñëw stade yéen nag ban ngeen fas yéene ñëw stade. ñun fa lañ nar a fanaan. waaw pare nañ takk jaaji yi bu ñu nee suba la fa leen tool rek tool lañ ko raw mais nag ñu xam ne match la rek entre ñun ak ñoom bu jeexee jeex na mais lu si war ñun dinañ ko def nañ xam ani engouement supporter suñu joor ànd ak suñu joor ba fu mu yem dem gañe ndam la ñibbi si incha allah. voilà benn message bu fair play ngay envoyé à l' endroit des supporters wu ASC Disso comme ASC Bokk Jom parce que gis nañ li fi xew fan yi quoi. li leen wax rek mooy que match la mënul weesu lu weesu match façon tàkkusaan bu ne jaar na fi ñu nag ñoom dëgg la une match capital mais tamit ñu leen xamal ni joueurs yi seen ñoom bu nawet bi jeexee ñooy nekk te ñoom bu nawet bi jeexee fi ñëw football si. comme nag benn match la rek bu nat nit ñaawoo nawetaan trois mois la taxul ngay ñaaw suñu teewul man àndoon neex ba ma faral boo bokk jom ñoom it àndoon neex bañ faral diisoo kon nag ku nekk tey sa couleur ngay défendre mais ci kaw loolu tamit nañ joxante cër ku ma am respect mais nag ñi ngi woote ñun suñu supporter yéen ñëw si jàmm ak salaam ñibbi si jàmm tamit kenn duñu tooñ te tamit bëgguñu tooñ mais nit rek boo ko tooñee na leen fekk si mais ñun violence yi ko si violence diisoo heure ne dañ tooñ mo waral lol nak mais par ci pour and voilà ñukoy remercier bu baax. Euh, ñuy terminer ak euh, message fair play parce que gis nañ jamono yi li fi xew naru bi am sax ci violence bi nga xam ci ñaari parce que ben tali leen séparé tali ñu leen séparé yaakaar na ne bokku nañ lepp ah, ñoo bokku lepp lepp lepp lepp ñuy ñaan ñaari ASC ñu ko ci fair play ñaari ASC lañ ah, parce que comme lañ ni parce que amna 22 trophées ci journal bi. ñii aussi la même chose ñu daje ay yoon yoon yoon yoon coow musul am donc du demi-finale bi la ñuy am rek mu nekk euh, fin du monde ñu ñaan ñaari ay ñu joué ko ci fair play et que la meilleure ñu jox leen rendez-vous dimanche fële ci stade Amadou Barry ci entre Diso ak ASC Bokk Jom en cadet comme en senior